bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati lilmi wa xathin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika ya arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi amaan mbette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 di nuyu mboolem way jur yi nga xam ne waxtu wii ñu ngi jàpp Sud FM seen rajo di wét ak ñun ñoo ngi leen di béggee bu baax di bég ci soppeek am di jàmm yépp di amaan mbégte ci dellu ak yéen ni ngeen di amee mbégte ci di xaar jotaay bi noonu yi lañ koy amee ci bu ñu amee ak yéen jotaay bu war a waxtaan ndax loolu daa bokk ci yi nga xam ne ay yëgante lay doon yal nañ ci bokk jariñu yal nañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy ñeme waaraate ndax du ñëpp ñoo koy mën a ñeme dafa am ñoo xam ne déglu waaraate neex na leen am ñoo xam ne déglu waaraate da leen di déranger waaye the zakkaru man yaxsha loolu la alxuraan waxoon ñi nga xamante ne ñoom dañoo ragal borom bi subhaanahu wa waaru ci mbir ak déglu waaraate da leen di yomb ndax dafa am lum leen di fàttali xëy na waxtaan wi bañ a doon waaraate waaye mu doon kon fàttalee ndax ñi ciy fàttaliku la wax te borom bi subhaanahu wa taala ba mu naan fàttalil wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin la ca teg ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàttaleel fàttali dana jëriñ ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla nañ ci bokk yal nañ bokk ci almuminin ñi nga xamante ne ñoom danañ jariñu ci fàttali danañ jariñu ci waaraate innama tunziru man ittabaa dikra wa xashiya rahmaana bil xaybi loolu la alquran wax ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru muharram di leen ndokkeel ci bisu tey bii di fukkeelu fan ci weer wi nekk bis bu tedd bis bu màgg bis bu am taarix bis bu am taarix moom laa doon laytaayal waxtaan ci jamono yi ñu jiitu yépp yiñ doon def diggante démb ak tey bari na ci yoo xamante ne aada yu rafet la aada nag bu fekkente ne jëmut ci ak mooy yàlla lislaam du wax déet waaye day bañ rekk ñu jàppee ko boobaa pas-pas yal na yàlla nangul ñu mboolem liñ ciy def te jàppe ko jaamu te jëmmam tax te dëppale ko njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam bisu tey bii bis la boo xam ne moom daf ko daan woor gannaaw ba nga xamante ne dafa ñëw màkka ci xadis boo xam ne dafa ñëw ma diina ci xadiis boo xam ne abdullah ibnu abbas radiallahu anhu moo ko nettali wala anhuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee ma diina fekk bis bi nekk ak feet ca waa Madina ndax Madina ña ko dëkke woon daa bari ay yahut mooy siif te siif yi ñoom dañoo jàpp ne Muusaa ci ñoom la bokk seenub yonent la te Muusaa itam lu ne mu daj ko ci ñoom ñu ne kat bis boobu ci la Muusaa amoon ndam ci la ko suñ boroom musale woon yow mun najaa bihi Muusaa bis la boo xam ne Muusaa ci la mucce Firawna lab ca baxru xalzuum ñu ne moo tax ñu di ko feetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen ñoo leen gën a yey ci Muusa am na sax ñuy wax ne koor gi yonent bi doon woor asura moo jiitu woon weeru koor moo tax xaw tuuti kon sax mu doon lum farataal bi weeru koor ñëwee nag mu doon bis boo xam ne fonkoon na ko lool ci wàllu koor bi mu demee ba ci atam yu mujj lañ ko wax ne ko daa mel ne yahuud yi dañuy wax ne danga leen di toppandoo ndax yaa ngi ñoom yéen a bokk bis nangam nangam yéen a nuróole te waxoon naa la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ab liggéeyam da caa bokk borom bi subhaanahu wa taala di ko dooleel di ko dooleel maanaam doonut koo xam ne daa ñëw di piraat ay yëf waaye lu mu fekk loola di lu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koy gën a baaxal mu ne suma dundee ba déwén naa woor bisu juróom-ñeenteel ndax wuute ko ak ñoom borom bi subhaanahu wa taala def la ko soob laata déwén si di jot loolu moo tax kooru bisub tey nekk sunna waaye nag ki nga xamante ne mënu ko moom wala am na ngant wala wóorut tegtalewut ne daa am bàkkaar ci ñàkk gee koor waaye ku woor am nga tiyaaba ju rëy ju tolloog jéem a yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci loolu bari na nag yu ci topp yoo xam ne dañ koy wax ci bis bi waaye nag buñ ko jagleelul bis bi dong mu baax maanaam na doon bis yépp na ci nit ki di góor góorgóorlu lu man moo xam saraxe la moo xam raay boppub jirim la raay boppub jirim te tëlewul nga dem ci jirim ba raay boppam su fekkente ne man ab jirim laa ndax saa bàyyi faatu na yal na ko yàlla yërëm bu boobaa lañ bëgg mooy jirim ba néew doole nga bàyyi ko xel nga bàyyi ko xel maanaam liñ ciy dégg rek mooy bàyyi xel néew ji doole rek bàyyi xel néew ji doole rek siyaare boroom xam-xam daa bokk ci yi nga xam ne njariñul jullit la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na màggal boroom xam-xam mooy màggal borom bi subhaanahu wa taala moo tax ki nga jàpp ne am na xam-xam ki nga jàpp ne boroom xam-xam la ci yow ki nga xam ne am na lu lum la jàngal ci sa mbiri diine nga mën a yokk ci moom nga sol saw daal dem siyaare ji ko wala nga jox ko sa addiya wala nga wormaal ko loolu jaadu na ci bis yépp ala kulli xaal sax ci waxtaankat yi walla ci yu demee nii muy yëf yoo xam ne danañ ko jam ba biddaal ko ba biddaal ko wane ne bokkut ci bis bi waaye bu fekkente ne loo xam ne ak jaamu yàlla daal te doon lu baax moom bis bi ak yi yeneen bis yi ci des yépp ku ca mën a lu moo gën boo demee ci masaalikul jinaan sëriñ tubaa ma ngi ko fay jàngale ci bayit wa saw mun salaatun sillatun wa xuslu ak yee ca topp yépp yal nañu ko yàlla fayal bis bi kon nekk bis boo xamante ne bis bu am wàccuwaay la ci diine ji am wàccuwaay ci jullit ñi yal nañu yàlla boole nangul bis bi nga xam ne nag ci la na laboon bu dee boobu rek ki lay taxaw kenn ku nekk daa war a jéem a labal am na ci boppam maanaam Firawna mi jàkkaar lool wala moom ci boppam li dikk na ci moom bu fekkee mooy lu baaxut mooy weddi borom bi subhaanahu wa taala mooy ak déjjërle mu won ginnaaw loolu ci kemtlaayal kàttanam ci summeeku ci bu ñu dellu si waatee ci e, weer wi nga xam ne dangay wax ne mooy weer wi njëkk kon benn fan wala wala premier mois ci weer yi nga xam ne moom la lislaam tëral loolu ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam tërale wuñ ko noonu ci jamono Ababakar radiyallahu anhu tërale wuñ ko noonu ci jamonoy Seydina Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu ci lañ ko tëral gannaaw ba nga xamante ne gis nañ ne xam nga Omar lu bari ci état lu ñu def tey fekkoon na Omar def na ko ca defin wa gën ba noppi loolu bokk ci li nga xam ne diine da koo am moom ko diine da koo am moom ko gis nañ ne euh, état day bindante ay lettre da ngay bind ay courrier yuy dem ñun ci suñ bopp sax dañ koy bindante ci suñ biir xanaa kuy bind dara da nga ko da nga ko wutal ab dat da nga ko date da nga ko date wax ni le douze douzième mois deux mille vingt et léegi loolu mooy tegtale ne wax jii fii la jëm bu ñu xëyee ba dix heures bu docteur du njaay ñëwee di wax euh, kaawu corona yi day wax datub tey bi door a wax kaa yi lu ko mooy buñ ko bëggee xoolaat duñ xam tey ak démb ak bërki démb kañ la doon wax kon dat moom mënta ñàkk dafa am solo ci dunduk nit moo tax borom bi subhaanahu wa taala sax tërale noonu àdduna tàmbalee ko ci weer yi ba mu leen di bind inna iddata suhuuri inda allahi isna achara shahra borom bi ne weer yi ab lim la ci suñ borom waaye mooy fukki weer ak ñaar noonu mu nekk fukki weer ak ñaar wax nañ ne sax ci saxaaba yi am na koo xam ne daa am ku ko amee loon bor mu ne ko ci weeru Shaaban wi laa lay fay weeru baraxlu ba weeru baraxlu wa jotee fayu ko wala am nañu ak réeroo bañ ñëwee xamuñu ba xam baraxlu wi weesu la wax wala baraxlu wi ci kanam la wax wala wan baraxlu la wax léegi nag bu fekkee ab dat la bu ñu bindante di nga mën a xam ne sa carte bi at sàngam nga ko am at sàngam lay jeex loolu nekk ay dat yoo xam ne dañ koo mën a woññi tey jii su ma la waxee ne la ñoo ngi ci deux mille vingt et mi ngi tàmbulee ci juddug yonent yàlla Isa ak léegi bi yonent yàlla Isa juddoo ak suñu jooni yàllay tey mi ngi nekk ñaari junni at ak ñaar fukki at ak benn muy deux mille vingt et léegi boo delloo nag ci euh, euh, kon dat ya jiitu yonent yàlla Isa jëm kaw jëm kaw jëm kaw day mel ne ab xayma ñu doon natte noonu feeñu doon donte boo ca demee gëstu da nga ca fekk yeneen Seydina Umar ibnul Xataab radiyallahu anhu bëgg a taxawal nag loo xamante ne mbirum jullit yi lay doon te ko moom moo tax ñu jël euh, li nga xamante ne ni mooy weeru muharram tëgtalewul ne buñ ko waxee ne ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mën ngaa tàmbalee ba yonent bi gàddaayee ak léegi nga wax ne yaa ngi ci 1443 yaa ngi ci junniy at ci ba yonent bi gàddaayee ak léegi ak ñeenti téeméeri at ak ñeent fukk ak ñett loolu nekk taxawaay bu rëy boo xamante ne doyoon na jullit yi bàyyi ci xel doyoon na ñu sensibiliser ci suñ kemtulaayal kàttan euh, malheureusement suñum réew ci wàllu jëflante ak ci wàllu administration ni muy doxee nekkul ne ci weer wii la ñu tënku waaye suñu jaamu yàlla moom ab jullit bi ak jaamu am moom ci weer wii la tënku ci doxaliinu weer wii la tënku looloo ko yóbbu itam mu war a bàyyiwaale xel kon at yii ndax ci weer wi lañuy wax tey jii ñuy wax ne mooy fukki fan ci weeru muharram xam nga ne fukki fan la ak juróom-ñeent ci weeru ut fukki fan la ak juróom ci weeru ut loolu nekk loo xam ne euh, kon dëppoowut ki nga xam ne boroom këram dafa génnoon àdduna tey ndax ñaare ci loolu lañuy ñuy gën a bàyyee xel yenn na natt yi yal na yàlla yërëm boroom kër yi jiitu yépp soxna sim fi bàyyi daa war a tënji ñeenti weer ak fukki fan bu dee tey la ko def ci 19 août du jàpp 19 août ni ma ko waxee woon ci bind bee ñu génn mu ne 19 août ban weer a topp ci août septembre 19 septembre mu ne benn weer déedéet waaye 19 août mooy fukkeelu fan ci weeru muharram léegi kon day xooli weer wa nga xam ne moo topp ca muharram bu boobaa day xooli weer wa nga xam ne moo topp ca muharram noonu lay mujj tërale li nga xamante ne ni mooy ak euh, maanaam ténjëm noonu lay tërale jàpp gi nga xam ne moom la koy jàpp ak yi nga xam ne moo ci aju ala kulli haalin taxawaay bu am am solo la boo xam ne ab jullit da ciy bàyyi xel am na nag yu ci réew mi amoon yu réew mi amoon ci jamono jii ci ndokkeelante ndokkeelante day tax ñu bëggante te lay tax ñu bëggante borom bi subhaanahu wa taala digal nañu ko bëgg nañu bàyyi ci xel moo tax boo xëyee diggante yi nga amoon tam ñagas occasion ñëw na ngir nga rattaxal ko ndax xëy na bu dara xewul woon seytaane man laa man ba nga rëy ba doo mën a woote di baalu àq rikkuwaay bu rëy rëy lu tey jëlal sa téléphone bi nga woote ne ko dama la doon siyaare ci at mu yees mi baal ma àq ki nga xamante ne mën nga koo dimbali tiyaa ba ñëw na ngir nga mën ko cee dimbali waaye jaamu borom bi subhaanahu wa taala jamono da koy gën a fulante waaye jamono yépp lañ ko soxlaa bu ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax njeexitalu at mën a doon ak dugg cim at doomu aadama da cee war di évaluer ak dundam Seydina Omar ibnu Xataab radiallahu anhu mi euh, bàyyi woon xel jamono jii ba def ko daan na wax ne régler sa bopp bala laa sa borooma regle ñenn ñi di wax ne ab xadis la xaasibu anfusakum xabla an tuxaasabu regle leen seen bopp xisaab mooy nga régler sa bopp doomu aadama war na di évaluer ak dundam di xool di xool programme rek la ak yitte bala ngaa àgg ca borom bi subhaanahu wa mu tiim la mu war laa xool war laa lañ bat loolu nekk ab njàngat mu rëy moo xam ne ci xew-xew yi bis bi la bokk moo tax bis bi bisu taarix la boo xam ne mag ñi daan nañ ci jàng ay ñaan daan nañ ci jàng ay ñaan diggante démb ak tey ma taxaw ci ñaan yooyu ndax démb ak tey man de ñu bari woo nañ ma di ma wax ñaan gan laa war a def ñaanu bés bi laay laaj te xam naa ne dana am ñeneen ñuñ ko defee noonu ala kulli xaalin bu fekkente ne léeg nga dégg ay werante ci boroom xam-xam yi ndax mbirum jaamu yàlla daa soxla nit ki indil ko ay delluwaay yu wér moo tax wax ne ci bisub tey bi ñaan yi la ñuy ñaan dangay indi delluwaay ya nga ca jàng rek nattkat yi ñoom natt loola ndax lu wér la wala lu wérul la ci aw waxin wér ak wéra moom lu yaatu la waaye nattukaay yi moom mën naa doon yenn képp waaye ñaan moom lu wér la ak saa yu ko nit ki defee bisub tey dañ ci jàng ay xasbunallahu wa nihmal wakiil yu bari te muy baat bu am solo xasbunallahu wa nihmal wakiil xam nga ne yonent yàlla ibrahim alayhi salaam keroog ba nga xamante ne nam Namruus mu déjjërle ma werante naa moom ibrahima mel ne ku ko yey mu ñàkki argument bëgg a jëfandikoo doole ndax léeg kilifa bu ñàkkee argument mën naa jëfandikoo doole fas ko yéenee dugal ca mbaq ga sànni ko ca sawara wa Ibrahima la mu waxoon mooy xasbunallahu wa nihmal bàyyee naa sama bopp sama boroom yow mi koy wax yor sa kurus gi naan xasbunallahu wa nihmal wakiil xasbunallahu wa nihmal baat bi li muy tekki mooy bàyyee naa sama bopp sama boroom sama boroom doy na ma wéeru naa ci moom wéeru naa ci moom soxlawu ma takk ay galen soxlawu ma takk ay cëwri soxlawu ma ay lijjanti bàyyee naa sama bopp sama boroom ni amal mawla wa nihman nasir borom bi day mooy kilifa gu baax gi mooy dimbalikat bu baax bi yàlla nañu boole dimbali yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroo xare Uhud yéefar yi rey ci àndandoom yu tedd ya ma juróom-ñaar fukk ñu tëdd ca Uhud yal na yàlla yokk seeni leer te gën leen a fay yonent bi alayhi salaatu wasalaam war ñibbi ca kër ya ànd ak jàmbaaram ak seeni jam-jam ñuy nàcc di ñibbi abu sufiyaan am kum yabal kooka dab leen ne leen yaa ngi ñëw waa màkk fas yéene leen a dab ngir jekk li si leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mu wax mooy xasbunallahu wa nihmal wakiil aaya jàng ca suratu ali imran boo demee ca daara ja ñi lay jox xasbunallahu wa nihmal wakil ci wàllu nga di ko tudd muy tudd borom bi subhaanahu wa taala di ko wérd maanaam di ko zikkar danañ ko ca ràbbaale alladina qaala lahumu nnaasu inna annaasa xad jamahu lakum faxshawhum fa zaaduhum imaana wa qaalu xasbunallahu wa nihmal wakil loolu la borom bi wax ba nga xamante ne day nit ñëw na ca ñoom wax leen ne leen nit ñaa ngi ñëw ngir dab si leen fas yéene leen a rey nee na lañ wax ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba ya mooy xasbunallahu wa nixmal wakiil bàyyee nañ suñ bopp suñ borom xasbunallahu wa nixmal wakiil boroom bi ni leen fanqalabu bi nixmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu waaw benn musiba dalu leen te dara du leen dal mucc nañ ndax gannaaw dañ maa bàyyee seen bopp ma aar leen bañ mucc te yàlla kum aar nga mucc coow li coow li eh, ku mucc rek wala ku borom bi subhaanahu wa taala seetaan rek nga yàqu moo tax moom ngay bàyyee sa bopp wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaasifa lahu ila huwa waaw ku boo ko bàyyee sa bopp rek euh, mu dox sa digganteeg lépp loo xamante ne ni moo lay lor waaw boo boo ko bàyyiwut sa bopp nag euh, bu boobaa da ngay doon koo xamante ne ni mucc mën na laa jafe ndax in inna ibaadi la waxoon iblis ndax iblis da ko wax ne ko la ughwiyannahum ajmain ñoom ñëpp laay sànk mu ne ko am na ñoo xam ne doo man ci ñoom dara ñooñu mooy ñi ma def kilifa waaw ñi ma def kilifa ñooñu maa leen di aar dox sa digganteeg ñoom ba doo man ci ñoom dara incha allah yal nañu yàlla boole jàppale aar ñu ci darajey xasbunallahu wa nihmal wakiil dugal ñu ci kiiraayam ga nga xamante ne kum ca dugal nga mucc am amaa jëmmi ay lim ci yu mel noonu lu baax la waaye léeg-léeg joxe ko ci ab antenne it mën naa bañ a gëne noonu mën naa gëne noonu mën naa bañ a gëne noonu ala kulli xaalin lépp looy ñaan boo xëyee bu ci xasbunallahu wa nihmal wakiilu ma nee bokk baax na waaye nag na doon bi nga ko waxee ba noppi nag sa jéego yi ngay teg ci kanam bokk ci bismillahi alladi laa yadurru masmihi shay'un fil ardi wala fi sama moom nga jàng ba ngay xëy waaye xasbunallahu wa nihmal wakiil mooy bàyyee naa sama borom sama bopp waaw bu boobaa nag da nga koy jege danga koy jege da ngay fexee jege sa borom subhaanahu wa taala boo bëggee aw sàkket bu bëggee bañ a daanu day day daru ci xer bi hmm, day daru ci xer bi koy téye mooy tax mu bañ a daanu moo tax buum gi dox sa diggante sa borom subhaanahu wa taala rikk waaye na nga fexe ba mu dëgër nanga ko ubbee at mi na nga ko jeexale at mi na ko ubbee at mi na nga ko jeexale at mi moo tax tawxiid lu mat a bàyyi xel la waaw lu mat a bàyyi xel la te muy wéetal borom bi subhaanahu wa taala ndax ñi am ndam bañ leen di fàttaliku euh, bu dee ci diine ak ci àdduna ndam la di ndamul dëgg ka ko am wéetal borom bi subhaanahu wa moo tax mu am ndam loolu keroog bi nga xamante ne Muusa ànd naag nitam ña di daw firaw na topp ko ba mu seen pëndu fasi firaw na ya dara doxatul seen diggante Muusa bu siggee xool ci kanamam géej lay gis bu xoolee ci ginnaaw firaw na lay gis ñu ne ko Muusa ñun yàqu nañ ndax na firawna danañu dab lam wax mooy maa ngi ànd ak sama boroom maa ngi ànd ak sama boroom sa yëx diin sama boroom dana ma dana ma dimbali waaw dana ma dimbali eh, Oustaz Alioune Sall ne ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu nekkee ci xunti ma ba muy wax dafa wax ne laa tahzan inna allaha maana loolu la wax ab bakar bul tiit yàllaa ngi ànd ak ñun engagé abu Aboubacar parce que Aboubacar dafa gëm dafa gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam te gëmut gëmu ay santiment ak ay logique ak ay intérêt banu Israayil yi ànd ak Moussa nag am na ñoo xam ne tàqale ko mbugalum firaw naa leen booleeg Moussa waaye gëmuñu Moussa gëmuñu Moussa moo tax Moussa du leen jëlaale engagement inna maaya rabbi la wax inna maaya rabbi waaw sama ah, sama borom day mi ngi ànd ak man man man Moussa te xam naa ne dina ma dimbali ba mu ñëwee ba sëf ci géej ga borom bee ko jox ndigal ne ko dóor ci yat wi mu dóor ko mu xar moo tax ñun euh, léeg-léeg ñu ñu waye di bay foyee suñ bopp waaw suñuy média itam ameel ñu àq ak léeg-léeg suñuy suñuy waxkat ci ñàkk xam lan lañ lan lañ war a teg suñ kanam xam nga lu toll ne njeexitalum at fukkeelu fan bi li ci nekk ci lu ñu war a bàyyi xel ñu naan la diw may xar géej gaag ne woon na dana ko xar xaru koog mujj ko xarak fii la daw ak fii la nàngam léegi ñun ñoo bëgg ak jommale moo tax ñu ñuy nax waaw ñun dañoo bëgg ak jommale moo tax kuy woote sax ci wàllu yàlla wala lu man di doon dangay fexe wax lu xajut ci boppi nit ñi wax wax lu xajut ci boppi nit ñi ndax ñu gëm la ndax ñu gëm la waaye li ma bëgg a wax mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala moo feeñ ci ñaar ñooñu ñëpp moo tax ndam yañ am nekk ndam yu rëy yoo xamante ne nii duñ dañ mukk ci di ko fàttaliku waaw deesu dañ di ko fàttaliku ba tey waaye nag liñ ciy jànge itam doon lu baree baree baree baree bare yal na na yëpp lab yal na yal na firawna yëpp dee waaw yal na Muusa yëpp dund ak système yi nga xam ne moom la Muusa yoroon waxoon naa la ca bindu bërki démb ba ne la firawna ab système la yonent yàlla Muusa ab système la boo koy jàngat ci wàllu politique moo tax borom bi subhaanahu wa taala xam ngim xam ne àdduna lépp politique la te bëgguñu bàyyi ci xel tax na Muusa histoire ak ak na fees dell alxuraanul karim yal nañu yàlla boole jéggal yal nañu yàlla boole nangul ñoo ngi baalu àq ñiy déglu almisbaax yépp diggante daaw ak ren ngeen ñuy topp ñuy ñëw di wax ak yéen te wax yombut ñuy ñëw di jéem a wax ak yéen te wax yombut ñuy ñëw di jéem a taal làmp bi ngir leeral waaye itam nag léeg-léeg nga taal ko te am leer gi am fu ëggut wala itam nga jubloo leeral ba far lëndëmal yàlla nañ ci yàlla musal ñoo ngi leen di baalu àq ñoo ngi baalu àq boroom xam-xam yi ñuy déglu di baalu àq ilimaan yi di baalu àq sëriñ si di baalu àq képp koo xam ne mas ngaa dégg ñu yëkkati kàddu te fekk kàddu gi dëng wala nañ ko bëggee woon demewut noonu loolu suñu yéene ñaan borom bi subxanahu wa mu may ñu ñu jeexal at mi ñaan ko mu may ñu ñu dugg ci meneen at tam jële fi jàngoro yi jii nga xam ne mooy corona jële fi jàngoro yi jikko yu yàqu yi jàngoro wax lu dëgg jàngoro yu fausse rendez-vous jàngoro am sa alal lekk ko yow dong jàngoro wor jàngoro weerante bi jàngoro wax ju amul njariñ di ci pénc mi yépp yàlla nañu ko borom bi subhaanahu wa taala boole saafaraal ñoo ngi ñaanal suñu kilifa diine di ñaanal sëriñ Muntaqa di ñaanal sëriñ Babacar Si Mansour jël ñaanu xulafaa yi nekk ci réew mi yépp teg ko ci seen loxo ak mboolem ñi nga xamante ne nii sagub lislaam lañ te toog ci keppaarug lislaam tey suuxat garab gi yal nañu yàlla boole sàmm jaajëfal bu baax Oustaz Alioune Sall ndokkeel ko ci bis bu tedd bi ak taxawaay yi nga xam ne moom la ciy amal yépp ak waa Ali Imran ndokkeel imaam Ahmad Dame Ndiaye mi mu ciy àndal ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñooy jàngale diine fii ci rajo bi ñaan borom bi subhaanahu wa mu boole ñu sàmm Oustaz Alioune Sall lañ leen di bàyyeel mu ànd ak ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu